tey di dëkk man loo xam ne mooy làmb. Mhm. te ma war na fekk Sénégal te bu ñu fekkoon Sénégal dañ ciy def suñu wàll. Mhm. bu fekkee ci Europe bi. Mhm. nga xam ne si wax dëgg yàlla ñu ay nitu Pikine lañu. ay Pikinité lañu. te ci reen yi Pikine yi lañu bokk. kon su fekkee ne mbir dafa am dafa fekk ñu fay. nañ si wax suñu àq ci wax. dëgg la ndax loolu dafa baax. Hmm. ndax la waaw foofu sax la ñuy taxaw noonu ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier ñi xam moom la ñuy dëgmal mii le 27 mars bi di ñëw ñi yow. comme Pikine waa nga lan ngay ñaax Eumeu Sène ci combat bi. manal bu fekkee da bëgg a dégg te yàlla bëgg. Mhm. man man Mansour Diop. Mhm. Pikine laa dëkk. dëgg la. ñu Fallaye Balde demee ba jeexal. Mhm. Papa Diop fa jaar. dëgg nekkoon fa ak ñoom Aliou Ndiaye. Mbène nekkoon fa ak ñoom Sa Thiès. ñoom jaxatu bu Pikine ñoom naaru bu Pikine. ak suñu grand frère ba. Papa hmm. Sadio Ndiaye. Hmm. ñu koy wax euh, kii euh, Abdou Ndiaye. Kolos. Hmm. waaw ñu koy wax ay ab Abdou Mbaye Alain. ñooñu fa nekkoon ak Pape Diop. dëgg la ñooñu jeexalee man ak Balla Beye ñoo fa nekkoon. nga ñëw nga indi Balla Beye nga indi Tëggoon nga indi nga indi Mbacke Baax nga indi. ñoom ñoom Pape Ndiaye Sawaraay. exactement. Mm-hmm. ñooñu bi ñuy jeexalee ñun ñoom baaboo fa tegu woon. Mm-hmm. ñoom baaboo yi bi ñuy jeexalee xale yi fa tegu. ëmb mm-hmm. seen. ci. booy ñaar tegu ca. ñu doon ñoom ñett ñaari Ama ñaar nekk fa ëmb seen nekk seen grand frère. lii suñu débat ñun. mooy ku dëkk Pikine di bëre. dañ faa war a ñëw wax suñu àq maanaam. dëgg la. waaye nag ñun maanaam dama def foofu ñun kii bi ñu dëkk. dëgg la mënuñoo dëkk bi. lamb am. Hmm. ba jeex. Hmm. te waxuñu ci wala ñaaxuñu xale yu bëri te dëkk bi. dëgg la loolu man nag hmm. ma ci bokk. man li may ñaax. subaa. su combat bi. comme seen yàlla ko yàlla may ndam gars yi malal. dëgg la yàlla ko yàlla bu dee ba jeex. tey dañu waxante dëgg. soo demoon tey mbuur. tey bu fa Mamadou Thior nekkoon wala Cissé Cissé bu Mbour ne fa. Hmm. wala nga dem tefes nga fekk fa ñoom Madani. Hmm. fekk fa ñoom Adoy kooku mën a fekk hmm. hmm. bi rek ñaan hmm. la waaw loolu la wolof di wax ragal péete day dàq wërsëg. sax sama la. ndax la kon la daanaan. dëgg la ëmb seen li ñu hmm. am na victoire bu bu ne jox na pikin lu nekk ci àdduna. dëgg la combat moom. dëgg la boo demoon day caare. Hmm. rëgg rëgg buy bëri. nga ne Sele jéeye. wala nga ne Bamba maa. waaw nga ne Adama maa. wala nga hmm. Ablaye Kébé Raysida. yaa ngi dégg dëgg la ñooñu ñëpp kan lañu doon ànd fekkoon daf lay fekk tey rek bu ñu àndal. dëgg la dëkk Pikine kan lañu war a àndal. ñun mag yi Pikine kan a àndal. lu ko dalee moom mooy seen mag. ba suba. Mhm. ci wàllu mobilisation bi. mobilisation bi dëkk waaw ma ne ku dëkk Pikine da ngay màgg Pikine. Mhm. lay ñaan. Mhm. nga ñëw ànd ak Eumeu Sène ci combat bi. Mhm. muy manager bu dëkk Pikine. waaw am mag bu dëkk Pikine sama manager. ñëpp la ñu wax ñu ngi ñaan ñëw ànd ak Eumeu Sène. dëgg la Eumeu